bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsolatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana mohammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax Eh, nekk ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab màggalu Kazu Rajab bu ñu ko waxee xel yëpp danañ dem ci ki ñuy màggalal muy Cheikh Ahmadul Fadal radiyallahu anhu ñu bëgg leen indil tey ci dara ci ak dundam ngir nit ñi man cee jëriñu bu baax a baax ñu tànnal leen ren ci documentaire bi nga xam ne moom leen dégtal ci ci ndigalul sëriñ abu Mbacke moom Cheikh Ahmadul eh, ci ndigalul jëwriñam sëriñ Bachirou Mbacke moom Cheikh Fadal sëriñ Abdoul Fattah mi nga xam ne moom moo jiitee lépp lu jëm ci yëngu-yëngu màggal gi sëriñ Ahmadou Badawi mi ñuy teg lépp lu jëm ci teg loxoom lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ñi ngi leen di fas yéene indil ñaari tomb ci dundu sëriñ Falilou benn muy réalisation yi nga xam ne réalisé nañu ko ak dundam ñaareel bi mooy relation yu rafet yi nga xam ne moom la amoon ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteeloon bu ngeen toppee jataay yi nga xam ne ñooy feeñ ci biir documentaire bi da ngeen ci am njariñ lu mat sëkk ñu séq ko ak ay personnalité yu wuute ñoo xam ne jamono te ñoo Cheikh Amadou Fadal ñuy wax lépp ñu fekke woon ko dund ko ak ñoom kon duñ def lu may bàyyi leen ngeen topp documentaire bi 1927 làqoog sëriñ bi dafa mel ni tukkiteel ak dund ngëcc xel yëpp jaaxal ñépp nekk di tiis wax ni kenn mësa gis tiis mu toll ba tax na wuutu ko ci yooyu jamono lu jafe woon la nekkul woon loo xam ne lii doomu aadama war na koo man wala nga xam ni ko koy man day doon doomu adama joo xam ne yi sëriñ bi koy dimbalil boppam ndax yooyu jamono ni nga ko waxee jamono yu tiis la woon te ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di nooni mbër ji di tubaab yi ak ñi ñu àndal socc woon nañu fas yéene ndax jàppoon nañu ni yoon wi moom gannaaw jëm nañ ko yàq ci wet gu jëm ko tasaari ci wet gu mënuñ ci dara seen li ñuy dese woon ci si yaakaar ko su néew moo di jàpp ni moom lu mën di xew mu yeex mu gaaw ku baax ki dina fi bàyyi ko te saa bu fi bàyyi ko moom mi nga xam moo téye woon yoon yoon dina tasaaroo wi njëg te ñoom ci seen bopp ñi ko noonu danañ jàpp ci taxawaay euh, tasaare boobu ndax danañu am lépp luñ dugal ci pexe dañ ko jële ci bitim yoon wi dugal ko ci biir yoon wi ngir tas yoon wi loolu donc nekkoon di seen yaakaar ah waaye sëñ Modou Moustapha jóg taxaw tem at yim fi jëkk a nekk yëpp itam yëpp mooy mànkale yoon wi dajale leen boole leen ñu nekk benn ba loolu yi nga xam ni moom la noonu séentu woon yemul ci bañ yoon wi dafa gën a yokk gën a am doole gën a dëgër takku ni kenn nit ci gannaaw sëriñ bi sëñ Modou Moustapha wa loolu moo tax sëñ Modou Moustapha mën na liggéey liggéey bu rëy bii nga wax muy tàmbali jumaa yi bi mu fi bàyyi nag sëñ Fallou daal di taxaw bi mu taxawee moom itam itam yëpp nekkatul ci lenn lu dul def liggéey bi leen fi sëriñ bi loon muy jumaa yi Tuubaa ji te xam ni moom ci boppam sëriñ bi da ko ci joxoon ab cir boppam feeñ gi mu feeñ ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab te loolu mooy alisra wal miraaj te guddi googu ci lañ jox Moustapha alayhi salaatu salaam mbirum julli waaye kon ki feeñ ci guddi googu moom mënta ñàkk ñu taxawaloo ko julli loolu julli boo koy taxaw dangay taxaw fa yi jullee amul boobu ci àdduna ñaari yitte def ko mu benn yitteem nga xam ne boobu eh, da nga daal di gone gu ñaanal mag naa maam yàlla nga fekkee matal jumaa ji ndax mel ni jumaa ji moom ak matam ci xarnu bële lay ñëw waaye du ñëw léegi waaye ba mu ko tàmbalee ak bi muy àgg dafa mel ni kiimaan la waaye kenn foogu ko waaye da ko defoon muy benn yitte. ñu def balaa sos benn tëli bi ba benn benn seex. li mu bayal boppam te nun noo koy bay mu dajale ko ñu peese ko ba def ko benn kayit mu woo daam Dramé ak tubaab bu ñuy wax askan naa teg ko ci seen loxo bàyyi wuloon kenn itam bokk yëpp la woon bokk itam kenn ku ci ne kooku wuyu ku ne itam ña ña ña wuyu si moom yaa yaa leen fi ko loolu loolu la ko yàlla defaloon. franc ci loo xam ne nag bokkut ak xeer yi ñu daan jëlee carrière te kenn jënd ko bokkut ak ciment bi gaa yi daan indi te kenn jënd ko bokkut ak li fi Cheikh Moussa Mbacke def ci teg première pierre ba ba ba ni miir ba jóg ba kawe loolu lépp bokkul ci ci xaay bi moom mooy liñ daa fay liggéeykat yi yi nga xam danaa dañ ak architecte yi waaye booba baay Fall yeeg baay Jenn yeeg baay sàll yeeg baay Ndiaye ñëpp laa dem carrière di fa noor ba nawet bi ñëw ñu soog a ñibbi te benn xeer bu ñuy jël génne ko di ci fay xay amul da ngay gis ku ñëw yenu aw xeer ndokk ba ba ba jumaa ji gis ku indi otoom sarse ba mu fees jumaa ji wàcc dem yoonam waaye lii xaalis boo xëyee daal luñ fay la architecte yeeg ñi daal liggéey ñuy fayu 677 million six cent quarante six mille cent quatre vingt ji ci boppam melo wi mu mel ak taar bi mu am rafetaay bi mu rafet képp koo xam ne kii xamoo mbirum sëñ Fall da nga naa eh archive bi de mooy góor dëgg dëgg dëgg dëgg waaye dara di ci archive lépp sëñ Fall ndax dañu ko liggéey. pàcc bu nekk morom defuñu loo xam ne dañuy tëb rek daal di ay ci nii nii de plan déedéet fuñ si toll dañ naan fii lañ toll architecte bi ñëw indil ko nga xam ne moom la xalaat moom sëriñ boo yor kiré nga boppam toog architecte bi toog ma toog ma ne ko nii la dindil lii dindil lii defal lii defal lii koo ko bu defee ba noppi del si wanaat ko mu di ko corriger defal ni def ba mu jeex takk ba mu agsi ci fi mu bëgg mu ni ko lii la ñu def ci loolu yi ci la ñu dugale euh, jàngukaay bi ni moom mënta ñàkk moo sàkkit ki ko doon fi doon jàngale waa kër si ñam sax naa mu ngoog Cheikh Abdoul Fadil jumaa ji ni mu ko def ba mu egg noonu bés ba mu koy yëgle nañ ko julli suñ ñëwoon mu ne nañ woo sëñ Calin mu julli ko wala sëñ Bousso bi wala sëñ Ndiayane loolu bu boobaat ab damu dama lay doon waaye moo bind xutbaam yéeg mimbar jàng alxuraan yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñëpp dañoo daam xutba arab boo xam ne bii fa tabaarakallaahu moom bi nga xam ne moo fi nekk sëñ bu ñu demoon bis boo bii muy ku ko ku ko yéegal mimbar dañuy def ci yàlla waaye lañu xam ne yëf yi am na am na am na damu dam loolu ba mu noppee dafa daal toog ne léegi dañuy wax ne képp ku dem da nga fi bàyyi naal maa ngi séeréel ñëpp ne amatuma naal loolu nag moo tax ba mu taxawee la mu jëkk a itewoo moo di màggalu Touba gi mu dellu ko ci tu ko ci Touba ñu di ko fi def ndax loo ko jiitu <coughs> sëriñ bi dafa digle woon nii na ko kenn ku ne di defe këram ndax li mu am ci yoon wii bu fekkoon demul woon du ko am te bu ko amul woon kon nun duna xam fu nu jëm ndax ba muy dem li ma waroon am lépp ci baatin amoon na ko waaye li ma soxaloon mooy yàlla jox ko loo xam li mu su ko jox mbindeef ci ñi koy jaamu ak ci kilifa yi ak yonent yi yàlla digganteek moom ñu bindante sartante moo dem ci liggéey ba ba dellu si am lii nga xam ne moom la am te kenn mësu ko am xelum boppam kenn ku ne xam na du jeex mukk xalima am du jaa daaj mukk itam waaye nag rëy na rëy koo xam ne gi boppam doyatu ko ci moo tax mu digal kilifa yëpp ak ni képp ko di taalibe bis bi bu dellusee nanga ko ko santale def ci bernde def ci jàng xasaayit jàng alxuraan bégal sa njaboot ba ñëpp xam ne lii moo ko tax a jóg boo ko defee muy cant guñ ko santale boromam ci la waxe woon nit ni ñaari keef yi li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem uh, bu xeebu ci dara yéemu ci dara waaye booba sëñ Abibu nee na daaw daawuñ ko woote déedéet bu bis bi ñëwee rek kenn ku ni jàng sëñ bi wax ne bu ñëwee nañ ko ci santale boroomam ci jàng alxuraan xeeti salaatu ala nabi xeeti zikkar xeeti tag bu safaa waaye kenn ku ne sëkk dañ koy defee loolu ñu ko defee bi mu wàccee liggéey ba ñibbi si Tuubaa Cheikh Amadou Moustapha tabarakalla wéyal xalaat boobu ba mu ca nekkee ne ca bokkook waa kër sëriñ bi ñëpp taalib bi yeeg doom yi ñëpp ba yàlla def moom tam mu làqu Cheikh Ahmadul Fadil wéyal na bés boobu bi maanaam benn yoon wala ñaari yoon hasaba riwaayaat waaye dafa dafa dafa xëy nag bëgg ñu delee ko ci bés boobu bii nga xam ne mooy fukk juróom-ñett yi nga xam ne sëñ bi ko waxaloon boppam. sëñ bi woo kilifa yëpp ñi maa woo ñu si sama bind li àll fa ne leen bis bisu màggal bi Tuubaa lañ koy defee te soppi nañ ko ci biis bi nga xamante ne sëñ bi ci jógee ba Mbacke Bari sëñ bi njëkk a woote Touba magalu tubaa gii ci tubaa gii 47. ñëw fi yombul waaye Serigne Fall fi ma ko njëkk a lijjante moo di waa chemin de fer ñu yoroon saxaar gi ñoom la gis wax ak ñoom ba déggoog ñoom ci ñu di ko defal saa bu màggal ñëwee dëkk yu mag yépp ñu wut fa ay saxaar yoo xam ne màggal doo nga leen tax a jóg nga xam ne train spécial lañ leen di tuddee dugal ca nit ña indi leen Touba loolu fi la jëkk tàmbalee liggéey bu boo xam ne bii jëm ci Touba la ci lu fi indi nit ñi li ñu amoon nag ci wago yoo xam ne moo mën a safi nit dafa néewoon a néew a néew boobu fekkoon loolu rek la kenn du mën a màggal waaye murid xër gi ñu xër te tubaab yi xam ko dafa tax lépp lu tubaab bi ma sa am ci lu mën a bërëngu ci raay bi rek da koy bis boobu dañ koy génne wagoy fas yi koy nag yi wagoy euh, euh, marchandise yi lépp la ñuy teg ci raay bi mur yi dugg ci ba fees dal te loolu bu fekkoon sëñ Tuubaa kenn du ko mën ndax bu jóge Ndakaaro wala Ndar wala xaay ba fii ci lu demee noonu neexut bu fekkoon da ci réew tubaab yi kon dañuy kalaame sax ñooy naan nit ñi dañ noo bëgg a rey waaye murid yi seen xol la ca sedd guy ñu nangu ko dañ koy fees del del del del del ba nga xam ni wago yi nga xam ne sax dégg nga dañoo am lu wee muur ca kaw dañu toog ca kaw xam ne dañuy fees mel ni kenn xamul ñu toll tubaab bi sax dañuy waar naa waaw ñi xanaa bëgguñu seen bakkan te fekk na bëgg nañ seen bakkan sëñ bi leen ko jaral loolu mooy bu ko dee ñu sëriñ bi am ci tubaab bi ñu wàññi paas bi foo jóge jëm Tuubaa genn wàllu paas ngay fay defal leen fukki fan juróom ndax booba boo duggee saxaar da ngay aller retour boo amee ñaari fan ñett moo moo moo moo jeex waaye fukki fan ak juróom la leen koy may xam ne boo jëndee paas bi da nga am fukki fan ak juróom dem Tuubaa mën a bëgg-bëggub sëñ Tuubaa bu ne su cay dugg da cay dugg ba xuus si xuusin woo xam ne da day mujj rek fi loxo xam nga màggal Tuubaa fi ne dem na ba dootu màggal Tuubaa màggal adduna la ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon ci bi réew ci ay jamono te nga xam ne saxaar amu fa saxaar mënta ñëw ba fi jóge foofu ñëw ba fii yooyu li nga xam ne ay réew yi ak ci Afrique occidentale française la juróom-ñetti réew yooyu le ñoom sëriñ bi dafa waxante woon ak ñaari compagnie roppalaan fi nañ ci jamono Air France ak UTA ba ñoom itam bu màggal gi dikkee dañuy yombal màggal gi lool dañuy wàññi paas yi defit ku jënd paas ku ne man ngaa toog weer dem delsi nii la sëriñ bi doxale woon ñi nga xam ni moom la ah, li ci des mooy ñi nekk ci yu gën a sori ñoo ñoom ci bato yi la ñu daal ñëw fu ne fu ne la ab délégation di jëlee jóge léegi Europe Asie Amérique ah. nga xam ne bu dikkee day mel ni mawsim la boo xam ne mawsim diini la waaye dafa mujj dem ba ba mawsim aalami la nga xam ne économique bu Sénégal sax da ci yokk da ci yokk dëkk bii itam moo ko nat dalaa wax it na bu kenn tabax te jumaa ji agul ndax bu jumaa ji àggee nag kenn ku ne na nga tabax tabax nañ tabax tabax yu rëy ba kuy ñëw xam ne fii sëñ Tuubaa bi dëkk waaw waaye feeg feeg feeg jumaa ji agul nag bu fi kenn tabax moom sëriñ bi ci boppam moo sant architecte bi nga xam ne mooy architecte mooy Escatina ki defar jumaa ji moom la sant ni kon na def plan pour dëkk bi ko def plan boo xam ne bi ci jumaa ji la ko ko doore lépp jóge ci jumaa ji dellusiwaat ci jumaa def ko mbedd yu yaatu fii ne mbedd yi ngis tey ji foofa la war tàmbale woon nga xam ni dañ doon waaru sax ndax mbedd yu lañ naan lu ndax yaatuwaay gi ëppoon na fi ñoom waaw moo Cheikh Sëñ Cheikh ne ko dama ma dëkk bi pala baa ngi nii defaroon naa ko ba fay ko donc dama am ci ñuy tëbbi ci àll yi itam boole naa ko ñoom boole naa yoon ak yow foo xëy ñu xëy fa loo loo joxe ñu ñu leeral ko waaw muy 1959. mu ne sëñ Cheikh nag ñaar rek am ku tabax tàggoowul ak koo xam ne ki tàggoo nañu tere ko mu tabax ku ci yoon du jot rek nañ ko nañ ko toj ndax naa ne bu kenn tabax te jumaa ji agul waaw. nit ñi lu leen neex lañ doon dëkke ndax booba àll rek la. boo dikkee dangay seet fi nga xam ne moom nga bëgg nga xotti fa ni nga bëgg sàkket def sa yëf mu jeex nga dem keneen def noonu keneen def noonu kenn du seet nii la wala jub naam jubutu yooyu yëpp loolu moom lañ doon doxale nga xam ni mbedd yu sew mu la woon yoo xam ne mel ni eh, ndiiru jaan dégg nga da ngay topp mbedd ba yàgg mu ni kulic wala nga topp mbedd ba yàgg dégg nga mu dëpp walla nga topp mbedd ba yàgg ak kër ganeen nga xam ni kon loolu awul woon wenn yoon woo xam ni wees moo na waxee yoonu ab yoon la ci ci yoonu dëkki nii waaye sëñ bi wax ne fu ñu àgg rek ne ne ne sëñ Cheikh bu fu ñu àgg te te mu war a jàll dama jàll ba ci man mii ba ñu mbedd mbedd mu njëkk a natt gannaaw mi ñett bi nga bàyyi koo ci jumaa ji wuti gannaaw dara mais mooy mbedd mu njëkk a natt ci natt bi maa ngi ci ànd ma ko ñaareel mooy mbodd mi ñu xaaree këram gi ci digg kër gi dafa ne dafa nag ma jëkk itam nañ ma jëkki ñu daal di kër gi boolem boolem di boolem waa kër waa kër boo ñëpp ñu génn la keesam képp lañ fi bay nga xam ne ci guddi gi lanu lanu lanu lanu taxawaatal aw aw seeg sake ci digg bi génn ñoom waaw ñu àgg foo xam ne fii dañuy jaaxle lool waaye euh, bu bu ko ko Euh, bu ko si euh, bu sëñ Cheikh yónnee Alaaji Baara wax ko mu ne ko nekk na na na nooy na nooy. waaye lépp dafa toog ci digg naaj bi. Euh, ci digg pënd bi ci digg ngelaw li ci digg tàngoor bi. danga daayewul deful nan xasaay di yem ca kaw ba lépp a jeex ndir su gàtt te lépp nag li ci gën a doy am ci mbégte ndax. am sa kër ñu di ko toj neexut waaye lépp nit dañ ko ndax xam ni sëñ tubaa dong tax ñuy def te liggéeyal sëñ tubaa fexe ba dëkkam bi gën a dëkk gën a baax ci dëkk yi gën koo rafetal moo tax ñëpp kenn waxtu jot ñu ngi jàng sayt ba mu jeex ba waxtu ay terrasse ñëw na fi lool ay tiwi na fi am ak ci tabax yoo xam ne yi tabax sëñ tubaa waaye fu ñu ci àgg fu ne la koy tëj loolu sëñ bi ko lu te it non nañu nañ nañ lépp lu ñuy def rek loo xam ne yoon da ko def nañ ko jikki ci man plan boobee nag gannaaw gi ñi nga xam ne ñooy ñi fi war sëñ falu tey ay jàmbaar kenn ku ci na tey ca plan booba nga sof ñu di ko sof baag si tey fii waaye bii mooy ndey ji day baa ngi nii moo tax fi ne dëkk bi yomba dem lool ndax plan bi benn xalaat la woon jumaa ji mooy dëkk bi bu ñuy wax dëkk bi jumaa jee tax kon nag li am solo mooy ku jóg foo ay jóge war a agsi mën a agsi jumaa ji bu gaaw gaaw ku jóge jumaa ji mën a génn dëkk bi gaaw gaaw noonu lañ ko def waaw da jumaa ji ko daal moo mooy ndey ji cinquante neuf boobu fekkee na sool sool bi ci mujjoon ak sool bi nga xam ne moom mujjoon ci liggéey bi fekk na làmp yi tàkkal waaw nga xam ne ay càkk rek lañ doon def ci diggante yooyu ak nuñ ko wootee waaye moo fekk jumaa jumaa ji àgg dafa leneen lu mu defal yi yoo xam ne yit dañ koy gis te ñu bari xamuñu na mu deme muy penc mur yi mii ci jumaa ji boo seetee jumaa ji fa miir bayam digganteem ak sëñ Fallou yaatu waa yaatu na lool digganteem ak euh, sow bi yaatu na lool digganteem ak penk bi yaatu na lool fi ci gën a xaw a bañ rek mooy ji wet gi féete nii te moom moo ko def te ba mu koy def des ko ñi ma wut a wax booba waaye am na ñoo xam ne métti woon na lool dañ naan mi penc lu mu doon ah bara bu yaata nii de yàq la de jaaxaloon na nit ñi booba seetal ko rek kenn xamul na loolu mu jaaxal leen dégg nga waaye ñi ma ñuy wax waaye léegi gis nañu ni bi fi million ñëwee tuuti na léegi si la mu xalaatoon te <laughs> tuuti na waaw tuuti na léegi te bu njëkk boobu ñëpp yàq-yàq lañ ko ñu bari bokk loolu ci jàppoon ñu ëpp na hmm, nit ñi dañu waroon gën a jege jumaa ji ndekete moom la mu gis noonu gisuñu ko kenn tey ku ko mën a yow des ko yokk ndax bu fekkoon demaloon nii million yi nit ñi fi ñëw ci maggal duñu fexej kooku ba tey ci mbiram la maanaam sëñ Fallou jëkk def mooy fexe ba baag ak goj jóge fi daa daal di jënd ci benn société française bu wax demaas ca dakaar benn pompe hydraulique ci yi gën a xarañ cooy jamono am doole ak crépine gépp ñu dugal ko ci teen bi fekk na jàjj faal sëñ Moussa Mbacke maa ngi jox jë bënn ko muy teen boo xam ne du jeex mukk kii mën ci feeñ di ndoxit mu neex te ndox mu neex lu jafe woon la li ci mata xam xamle nag moo di njëgu machine boobu yi ak installation yi ci war yëpp ak essence ba ak la koy doxal ak la koy baat lépp sëñ fa la ko doon fay ci poste boppam loolu lu mat a xam la loolu ngóor gi doon fay dul kenn doon fay te booba xaalis yombul loolu c'est important ndax booba ndox ci réew mi lu jafe woon la bari na dëkk yoo xam ni sañcu leen woon ñaa ñàkk ndox wala mu ñu tas ngir ñàkk ndox sëriñ bi ci eh, xaalisu boppam ak ci jibay boppam ci la defee ay teen yu bare bare bare bare yoo xam ne ci biir mi leen gas ndax dañuy ñëw gis ko mu jox leen ñu dal dem def ko te lool booba ndox jafe na lool lool looloo lam ci def ci ay lim mu ne su ko wax bari dëkk yoo xam ne tey boo amee ba tey ñi nekk fa sëñ Fallou ah ci jamono tubaab yi te loolu kat ci jamono tubaab jamono ba ak ginnaaw gi yi la lépp ñu eh, moo ko doon def ci jamono tubaab yi itam am na gouverneur général boo xam ne moo fi nekkoon ca Ndakaaru ñu tubaab Paul Béchard moo doon woo commissaire de la OIF juróom yi nga xam ne moom la France yi lifoon ci soow jant mooy ki nga xam ne moo doon seen kilifa. mayoon na ko ñaari forage yu mag te booba forage xewul ndax booba li xewoon booba mooy gas teen rek ci niñ ko daan gase ci baax waaw gas boobu waaye forage yoo xam ne mooy machine na koy gas àgg ba ci bët bu rëy ba génne ko muy lu mën a dundal dëkk yu bare bare bare xamandal leen kooku amul woon waaye gone général Béchar moo ko may ñaar forage yu mag ni ko seeta fo ñu def ko forage bi ci dal moo fi jëkk ne nee na moog ci dara mut lañ la ko gouvernement bi jëkk a jox mu notalee ndox gi ñàkk gam ñàkk daru mën naa ak daru salaam mu boole mu ne mu nañ ko def daru balaa naan tubaab tubaab tubaab daru salaam bokk benn bi mu notalee daru muuti mun nañ ko def daru muuti bi nga xamee ni moom nañ suñu bopp am na forage yu bari yoo xew ci réew mi yoo xam ne moom moo ko deful bi tubaab yi nekkee it dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkk ndox bépp dëkk boo xam ne di du moom moo ko euh, joxeel boppam joxe xaalis ñu def ko joxe na ndigal ngoor gi tubaab yi def ko fa ba tax na loolu itam lim la boo xam ni kenn mënu ko lim gannaaw loolu mu teg ci leeral euh, tàmbali leeral dëkk bi ndax dëkk bi amul woon courant te jumaa ji danañ toll foo xam ne fii ci liggéey bi dañu soxla courant jumaa ji it amul ay rajo yoo xam ni boo ci nodd mënees koo dégg foofu it moom sëñ Fallou Thiawam mu jënd ci kër gu ñuy wax Sofika ca Dakar benn group électrogène bu mag a mag moo ko xam ne groupe bu leeral la indi ko fii moom te ak yi si jumtuwaay ci awaar yëpp ñu installé ko wut ay fiil yoo xam ne dafa dem wër ci biir jumaa ji leeral ko defi rajo ci kaw fii soro yi toll woon leeral pénc mi leeral kër sëñ bi mooy jumtuwaay boo xam ne bii guddi la daan dox ci maanaa bu jant soo ñu taal ko ba xaaju guddi ñu fay kooku sëriñ joxaane moo ko yoroon ah bi nga xamee ne nag yooyu wees na loolu nag la sëriñ bi sant gouvernement bi ñu jële courant ca Ndakaaru bu haute tension te war du am doole indi ko ba fii mooy bii fi ne tey suñ faloo ko fi yooyu jamono nga xam ne dimbali na Touba waaye dimbali dëkk ndax dëkk yi nga xam ne yëpp jël liñ ba jaar na fa fu mu fi jaar ñoo leeral leen kooku xew ci xewali Sëñ Fallu bokk yore yi jamono yoon yim si Touba amul ci wenn yoon woo xam ni godrong nañ ko dikk Tuubaa yombul ndax bu fekkee Ndakaar nga jóge la ko tàmbalee Ndakaaru ba Tuubaa boo ñëwee ba cene ba foofu la godrong bi am cene ba ba njaarim rang-rang la woon foofu nag ci la sëriñ bi sant gouvernement bi Senghor ñu jële tali bi ca cene ba indi ko ba Tuubaa gi xam ni léegi moo dem Dakar yomb na lool waaye ci jamono jafe na. tuwaar fa kàll dëkk yëpp da nga gindee ko na loolu xamuñu coono bi ñu daa ñoom ci ay jamono te loolu sëñ fa la def. benn bés soxna may ñëw ni ma maxtaar man kat dama bëgg dem.